la jaajëfal ci bi nga ñu invité ñu bokk ci dialogue bi waaye damay wax sax concertation ndax terme boobu moom moo ñëw ci alquran baatu shura moo ñëw ci alquran di signifier nga xam ne soo ko bëggee tënk ay baat yu bari ngay jël concertation ngay wax ak consultation ak délibération te loolu dafa nekk principe l'islam boo xam ne dañ koo gëm kon ñu ngi lay jaajëfal bu baax di wax rek ne ni ko ñëpp waxee Sénégal mu ngi toll ci ay fan yoo xam ne euh, ñu bari ñi am xel wax dëgg yàlla xaw nañu am lu leen jaaxal tiit nañu euh, tiit googu nag ñun ñëpp ñoo war a ànd ànd akuk dal ànd ak teey ba romb fii ñu nekk euh, adduna bi dafa tëddee noo xam ne lu naturel la day tàng di sedd di lëndëm di leer nit ñi di feebar di wér di ñàkk di am ni yaramu doomu aadama tëddee nu am réew noonu lay tëddee day am ay période yoo xam ne faw mu am problème waaye ñu doyloo li alquran wax rek fa inna ma al usri yusran incha allah lii dinañ toog ba koy nettali comme ni ñuy nettalee yeneen yoo xam ne weesu na monsieur le président borom bi subhanahu wa taala daf ñu wax ci alquran ne inna allah la yugayiru ma bi qawmin xatta yugayiru ma bi anfusihim aw nit situation bi ñuy dund yàlla du leen ko changeel ñoom ñoo koy changeel seen bopp kon situation bi ñu toll yàlla mu ngi xaar ñun ñu def li ñu mën pour tegu ci yoon ni ko sunu benn sëriñ di waxee yàlla lim la sant boo defee li nga mën ba fa nga mën a yem la ca des mu ne la kaay ma defal la ko kon yaakaar nañ ne ñun ñëpp bu ñu àndee xol yi nekk benn ngir ñu romb fii ñu nekk yàlla dinañu fi rombale li ci des nag mooy bu fekkee ne élection yi la kañ lañ koy def ñu bëri wax nañ fi seen dat man damay wax rek ne Les conseil constitutionnel wax nañ ko def dans les plus brefs délais manam ci na mu gën a gaawee rek ma respecté meilleur délai meilleur délai kon ñu def ko dans les meilleurs délais au les plus brefs délais ah, ñu def meilleur délai d'accord meilleur délai politiciens yi nee nañu politiciens yi ñu taxaw sama kanam nee nañu ma wax meilleur délai bu ma wax plus bref délai bàyyi leen ma wax li ma waxoon rek bu ko defee président loolu nag comme ni nga ko waxee yow ci sa bopp yaa yor décision bi ñu ngi lay ñaan incha allahu taala ni ko sénégalais yëpp di xaare décision boobu ci niñ la xamee ak sa sagesse ne da ko jël ci na mu gën a baaxee ci na mu gën a rafetee bu boobaa aussi conseil constitutionnel candidat yi nga xam ne ñoom la bind ne ñoom seen dossier valable na jàll na man ci sama xalaat mooy ñu bañ a arriéraat di delluwaat gannaaw di lëñuwaat ay dossier waaye ñoom ñu seen dossier jàll nañu dem élection incha allahu taala kon ñu ngi leen di gërëm président di la sant di la ñaanal yàlla ñu ngi wax nga am nga am way war a bu ko amee ñu ko wax dina am ci gannaaw ñu wax leneen maanaam euh, ñu ngi wax cëppaandaw gu rafet maanaam nga àggale sa liggéey ci anam nga gën a rafet yal yàlla defal ñu jàmm defal ko Sénégal yëpp jàmm lii ñu wax mooy xalaatu jamaatu bi ar rahman wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf sëriñ bi